عنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax a baax di leen baalu àq itam di delluwaat sax di leen baalu àq ci wàllu koor gi weer wu sell wi nga xamee ne ci la ñu nekk ñu fas yéene waxtaan kemtalaayu waxtu ak genn wàll dafa nekk loo xam ne li lu xaw a takku la e, yàlla dogal itam tey sax dañoo waroon a am gan muy invité boo xam ne bii dafa waroon a toog fii tey nuy waxtaan ak moom ci wàllu alquranul karim mi nga xamee ne moo di waxu yàlla wala boog ñu waroon a waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne lii rek fafu yiteel na koor gi ak li ci sunu borom dëxëñ lépp et yàlla dogalitam itam xëy na xat-xatu jamono wala ñàkk teew goo xam ne gii la ko waral xamuñu ko waaye daal am na ko waroon a toog fii ngir def waxtaan wi sunu borom nag dogal na ne ñëwul te waxtu wi fokk nu def waxtaan wi moo tax rek ñu ne nañu toog jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen itam kemtalaayu waxtu yooyu nga xamee ne wax naa ko léegi su ko defee ñu dégloonte su ko defee itam suñu kemtalaayu xam-xam bu gàtt bu néew itam lañu xam rek nu baaxante ko ci suñu diggante ñi nga xam ne itam ñoo ñu raw fuuf te dañu déglu itam ñoom itam lu ñu mën a am ci seen barke ak seen ñaan ñu ñaan yàlla ñu ñaanal nu su ko defee itam nu ubbi téléphone bi ci kanam lañu xam ñu waxtaane ko baalu ante àq itam sargalante ndax itam loolu sunu boroom noonu la ko bëggee e alxuraan nag kenn mënu koo tudd te tuddoo jëmm ji nga xamee ne moom la ko yàlla teg ci loxoom mu di Seydina Muhammad salawaatullaahi alayhi ajmain mu nekkoon koo xam ni kii ku ku baax la bu ñu ko doon wax ci wolof nii yonent bi nit ku baax la woon waaw bu ma déggee ma ne nit la nag mooy nit la yàlla moo ko wax na ko nit nga waaw nit nga moo tax ma ne yonent bi nit ku baax la woon yàlla moom sax wax na ni innama ana basharun mislukum xanaa li am dox suñu diggante ak moom rek mooy la ca tegu ci wax jooju li ma wax te moo di yuuxa ilayya dafa am loo xam ne lii suñu borom subhaanahu wa taala daf ko déey yonent bi te ñun déeyuñu ko loolu mooy farq bi nga xam ne moo dox suñu diggante ak moom la mu ko déey nag dafa nekk loo xam ne lii lépp nit moom dana jafe mu peeg diggante yàlla kaddu yi nga xam ne imma wax na ko Seyduna Muhammad wala nga xam ne rotal na ko ci ab noppam wala li nga xam ne wax yu la nit peeg ko peeg ko à cent pour cent moom xëy na ñàkkul ne am na waaye du nekk loo xam ne lii lu yomb la ndax itam léeg-léeg fa awha ila abdihi ma awha xam nga léeg mu mu am lu mu ko wax loo xam ne lii moom rekk ak boroomam ñoo ko xam waaye nit moom xam li nga xamee ne dox na ci ay kàllaama wala ay wax yu dox diggante yàlla ak yonent bi peeg lépp ñoo ko yàlla may bariwul ba tax na kon alxuraan ji ñu tiim sax fas ci yéene def waxtaan ak yéen xeetu tafsir bu ndaw rek ndax ñaari jumla ci alxuraan rek mën nga cee yandu di ko firi te du jeex am na ñuy wax ne baatu basmala bismillahi rahmaani rahim loolu rek bismillahi rahmaani rahim am na ñu ne baa bi rek mën nga cee def ay weer yoo xam ne yii ci ñi nga xam ne dañuy def asraar ak yu demee noonu ne te doo ci mën a génn ngir nga mën ko expliquer nit ñi moo tax yàlla ne ta'wilul quran interpréter alxuraan moom kott moo ko xam waaw wa maa yaamalu wa maa yaalamu tawilahu illa allah maanaam kenn xamul tawil bi maanaam yàlla rek moo xam moo xam interprétation yi nekk ci biir kon képp koo xam ni kii yaa ngi wax ak koo mën a doon te la ngay wax du say wax wax la joo xam ne jii du waxi nit am na ñu wax ne alxuraan du waxi nit ndax waxi waxi yàlla la ba tax na kon kay ñëw di ko wax wala mu ko di interprété na fa na na jéem nap na bi fa kemtalaayu xam-xamam yem waxe fa ak fa xelu nit ñi yem lam yaakaar te bañ a jàpp ne moom la mu wax rek noonu la walla na mu wax rek ala kulli alin noonu la moo tax tafasir yi am ak boo mën a dem moo xam tafsirul nii la na ibnu ak boo mën a jël wala tabaraani yi ak boo mën a jël léeg-léeg nga dégg ñoom ci seen biir seen commentaire yi mu am ak wuute goo xam ne gii du wuute waaye du ñu bokk rek ni nga xamee ne noonu lañ koy dégge alxuraan itam nekk fi kitaabin maknuun waaw mu nekk lu ñu wàccee xuraanul karim la nekk nam fi kitaabin maknuun la yamasoo ilal mutaharuun waaw tanzilun min rabbil alamin mu nekk téere boo xam ne bii dañ ko codé maanaam loolu ci isaa waqaatil waaqia la nekk yàlla dafa wax ne dafa nekk téere boo xam ne bii daf dañ ko wàccee mu nekk téere boo xam ne bii lu ne ngi ci bu sell la bu baaxa bu bu productif sax la waaye nag dafa nekk fi kitaabin maknuun muy téere boo xam ne bii soo yoree portable tey ci biir portable boobu li nga def ci benn code boo xam ne bii boo ko taalee dafa naan la jox ma code bi ndax pour portable bi mën a nekk effectivement mu nekk lu fonctionnel fokk nga dugal boobu boobule pour appareil bi mën a ubbeeku bu baax wala boo ko tëjaatee boo ci dugalul code bi du génn léegi nag yàlla ne noonu laa def téere bi léegi nag comme daf ko codé te codé ko mooy la mbokk ma waxoon ne eh, euh, na nga li yàlla wax ci alxuraan te mbokk ma firi woon ko mu di sëriñ bu baax bu nekk fii ci biir Sénégal yal na yàlla dolli leeram yal na yàlla dolli kàttanam te ñoddi aw fanam waabud rabbaka xatta yaatiyaka al yaqiin loolu alxuraan la mu ne maanaam sa borom moom bul jóg di ko jaamu mukk di ko jaamu mukk ba yaqin bi ñëw baatu yaqin nag firi ko euh, interprétation yi bari lool mu ne dafa am benn kilifa bu nu laaj ne ko waabud rabbaka xatta yaatiyaka al yaqiin lu muy firi maanaam baatu yaqin lu muy firi mu ne mooy ay armeel mooy sëg ya te loolu kenn mënu ko dindi ndax déggin la ndax waabud rabbaka at yaatiyakal yaqin ba yàlla di rocc sa ruu yow ca la nga war a nekk muy jëm ci jaamu sa borom soo ko mënee rek def ko ñu laaj ko nag ne ko ay yaqin mooy lan mu ne mooy sëg ya loolu xel mën na ko nangu waaye déggin mën na ko nangu gannaaw nag dafa nekk fii kitaabin maknuun dana da nit dana lottu dana dana nekk lu daayif lu lu lu woyof lu lu doye lu ñu doye dal mu mën a wax ne man day ma peeg téere bi yëpp te di ma ko firee rek noonu la moo tax léeg-léeg nga dégg ku firi benn aaya rek nga daanu nga dégg keneen firi beneen aaya nga dégg ci beneen gis-gis loolu ñun ñi nga xamee ne ñi ngi faral di euh, nekk ñun ñëpp ay jullit te bootu ci tarixa Cheikh Ahmed Tidiane yi ak Chérif faatimi yi man boog daf may faral di dal ci téere bi nga xamee ne moo di xilaas zuhab bu sama turandoo Seydil Hadji si yal yàlla dolli leeram waxtu woo xamee ni bi ubbi naa téere boobule su ma ci gisee benn benn satr benn ligne nii rek liir ko fokk ma def ci lu mat 20 minutes di xool interprétation yi nga xamee ne yàlla maa ngi ñaan mu déggloo ma ko ci téere seddi Hadji Malick boobule ndax moom dafa màndu lool ci mbindam dafa màndu lool ci waxam moom Alaaji Malick dafa baax lool ci waxam maanaam dafa dem ba nga xamee ne waxam daf ko nuru ndax boo seetloo ci xilaas am na foo xamee ne xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëpp d'accord nañ wala bokk li ëpp ci nit ñi d'accord nañ ne njaboot ki ko yàlla jox juróom-ñaari doom lañu loolu moom defe naa ne li ëpp ci ñuy wax dañuy wax ne koo ci laajoon ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata doom la ko yàlla jox danga naan juróom-ñaar ndax mooy li gën a wér waaye ci xilaas Seydil Haaji Malik si radiyallahu taala anhu ci màndoom dafa ne awlaaduhu sittatun xam nga waaye nag yemu fa bil ittifaaqi dafa wax ne am na historien historien historien ngeen baal ma yoo xam ne wala ay nit yoo xam ne ñu ngi doon gëstu ci ci xew-xew yi ne woon ci jamono yonent bi mu ne am na ñu wax ne juróom-benn la waaw waaye nag yow alaaj Maalik yebul foofu dafa ne am na ñu wax ci nettalikat yi ne juróom la mënoon na ko caa bañ a fekk mënoon naa wax rek ne ah, awlaaduhu daa ne zaayun ndax baatu zaayun bi mi ngi ñëw ci kanam waaye dafa ne sittatun nangul ñi nga xam ne wax nañu la wax ba noppi waaye daan nag waalal assaxi li nga xam ne nag moo gën a wóor nag te gën a wér zaayun baatu zaayun mooy set mooy juróom-ñaar